bisimila mbokk internet yi dal ak jàmm yu ñëwaat yéen ci mbirum IAAF ak coow la ca aju ginnaaw atte ak i daan yi nga xamante ne moom lañ teg ci ndodda ba ki ko jiite woon di Lamine Diack bëgg nañ ñëwaat ak yéen ci anam gi nga xamante ne may kiile ab porox ndoll gu koy tere mu dugg kaso Lamine Diack doomu Sénégal bi fi nekkoon président fédération internationale bu athlétisme ginnaaw bi ñu ko atte ci bitim réew jot nañu teg ci ndoddam ab i daan bokk na ci daan yooyu ñeenti atu kaso waaye daanaka ñaar ya moom la waroon a tëdd woote gi nga xamante ne moom la l'avocat yi ko doon layal woote ngir ñu laata anam ngañ ko attek daan yeen ko tek moom moo ko may ak porox ndollu gu koy musal ci tëjum kaso l'avocat yi koy layal bu ñu sàkkuwul woon ngir ñu xoolaat mbir mi làmbaay dana ñaaw bu ñu sukkandikoo ci journal l'observateur ndax daanu ko naroon takkali lam ci saasi ngir yóbbu ko ca prison ba mu tëdd at yi ko wëy la tekkat yi daan foofu foofule ca bitim réew lu wérte wéer mooy kilee di Lamine du ñu ko yóbbu ca biir kaso ya waaye ci ab résidence surveillée lay nekk maanaam dañ koy tëj cib kër goo xamante ne nii du génn du dem du dikk bu ñu sukkandikoo ba tey ci l'observateur ci pàcc gu mu ne la atte ak dugalum prison wàllum yoon mel na ni résidence surveillée gi ñu wax lu yomb la te sax naka bokkul ci ab détention daanaka bu fekkee ni dañu ko daan ñeenti atu kaso yoo xamante ne ñaar ya dong ca lañ koy tëj su dee loolu la ñu tënk kile di Lamine Diack dana mujj tëdd ñaari atu kaso yi ndax mësta dugg kaso ca dëkkub nasaraan gi ñu ko doon atte muy France seen taxawaay ci wàllum yoon ngir dugal nit ki prison dafa leer nañ te amul benn dogal ci saa si ngir ñu jox la ab mandat de dépôt maanaam ca këru lattekaay ba lañ lay jëlee rek yóbbu la ca biir prison ba bu fekkee ne waxtu woon lay attee nekkoo woon ca biir prison ba loolu nag suñu nemee ko wuute na lool ak li xew ci biir Sénégal daanaka ba tey foofu sax ci seen réew ma bu ko juge bi defulee ki lee di procureur bi moom moo koy def ci fàttali ki lee di Lamine Diack dañ ko tënkoon ci këram ma dalee ko atum 2015 ba jamono ji ci ni ñu ko mën a waxee ci kàllaamay nasaraan père Diack perd le procès et gagne une résidence surveillée maanaam suñu papa Lamine Diack ñàkk na ci kanamu lattekat mujj naa am ndam ci ñàkk dugg kaso ndax dina dem ci kër goo xamante ne ni wuute na lool ak kaso ba lii lañ leen indiloon ci xibaar Tactic TV mi ngi leen di jàjj